mbokku Samagal TV mbokku internet yi ñu ngi fii ba léegi ci dixième édition Réit fii ci Thiès ma taxaw ak waa champion yoo xam ne dañ nuyoo wax ma fii mooy fan wax ma ba benn bergerie kilifa gi nuyu naa la. maa lay fay di la wax ne fii mooy bergerie Samba Juma Sow mhm. suñu papa. Mhm. sama frère moo samp bergerie bi. macha allah di leen di leen euh, tatagal di leen euh, delloo njukkal bu baax a baax a baax a baax. Samba Juma Sow ah. waaw Samba Juma Sow mooy suñu papa. bi moom moo may woo depuis Europe ah. waaw moo lay woo depuis Paris bu baax di seetaan Samagal TV. Euh, woo ma ne ma pour ma ñëw waxtaan ak yéen macha allah mu nekk lu ma neex moom moo tudd naan. Mamadou Sow la tudd Mamadou Sow. Mamadou Sow ñu ngi lay nuyu di leen ziar di wax ni ñu ngi ma ci bergerie bi. waaw tey allah ngeen nekk ci càmm gi tey na kañ ngeen taxawal lii. lii ñu ngi ko taxawal ci 2023 bi lañ ko taxawal. ah yàggul ah. yàggul kii 2023 lañ ko taxawal. yàggul dara dara dara. 2023 ngeen taxawal ba ngeen ko taxawal nan ngeen def recrutement bi na la demee woon. recrutement bi ma ci profito di nuyu Mamadou Selili de passage. Uh-huh. moom ak Balla Gadiaga. ah ndaxte ñoom ñoo ma jox tey li ma indi fii. ok ndaxte ci la indi doomu Sifa. Uh-huh. doomu Tokyo ak euh, sëtu galactique. ah moom mooy Amazon. lan mooy sëtu galactique bi. sëtu galactique bi moom mooy Amazon. Um, ok tegoon ndax dañoo xaw a nuroo bopp quoi. kii ok tey euh, loolu nga fi indi ay service yi kii kii kàlla maal bi. maal bi mooy jaaraama. Mhm. doomu as de la. Mhm. ak euh, doomu as de la. Mhm. ak H2. ak waaw moom mu ngi moom ngeen jëlee ci selli moom lañ jële ci selli ba mu am ñaata weer. bi mu seli bi mu koy da ko joxe woon après mu doog ñu ko jox bi muy ñëwee fële berger bi yàggul quoi. yàggul waaw. mu ngi ci 17 mois. 17 mois ok. femelle yi fi ñëw borom boobu weex tàll bale kan la tet nii boobu. tet nii bi. Uh-huh. doomu kaddu la. kuy kaddu. doomu galactique la. Uh-huh. ak euh, libidoor. ñu jël kàddu teg ko ci caatu mbaar caatu mbaar doomu chef d'état la. ñetti mal yi mag yi ñoom ñoo ko ñoo ko juddule ndaxte chef d'état la. maxtuum ak euh, galactique. moom fu mu jógee. kër bala Gaye galactique. mu nekk bu rafet. am na fi doom wala am na fi doom mais doom ji dafa dafa dellu ndaxte malformation la. état bi tëbaat rob bu ñuul bi. rob bu ñuul bi doomu Tokyo la. ah doomu Tokyo la. doomu Tokyo la. moom ñaata weer. moom mu ci. 11 mois. mu tudd Foutanké. mu tudd Foutanké fii de Tokyo et Fatimata. ah Fatimata. macha allah 11 mois. moom tëb na. waaw moom tëb na mu ngi ci mois. ku moo ko tëb. waaw jaaraama moo ko tëb. ok kii doom ji nag. kii moom mooy mère Ba. mère doomu Taranga mbote mi mu àndal doomu As de Pique la. moom As de Pique moo ko tëb. As de Pique moo ko tëb. da ngeen ko jënd yóbbu ko ci sel wala sel mën na ko jaay jaay ak tëb. waaw ma ci ma ciy profité di nuyu Bayna ture ndax moom moo ñu koo joxoon. pour ñu liggéey ci. yàlla def as de pique ñëw kër Pam Ndaw seli nañ nañ ko yóbbu foofu ñu yóbbu ko foofu le 22 décembre. yàlla def le 22 mai ci la juddu. mbate boobu ah as de pique wax nga dëgg ñëwoon kër Pam Ndaw ok même dafa léegi dem na. waaw ñibbi na ñibbi na ñibbi na ba dem abu ci abukan ñibbi na ba dem ci abukan waaw ah macha allah ah kon fa ko tëbee fii Thiès mu nekk liggéey bu rafet kii nag eh, borom eh, ñebe bi eh, kii doomu Sifa la doomu Sifa la la uh-huh. ak Tëddungal ak Ramata moom mooy Tëddungal ah? mooy Tëddungal waaw waaw ah, fils de Chima et Ramata moom it si leen ko jox Sélé moo ñu ko jox seen début bi ah, baax na de waaw macha allah sant yàlla sant yàlla sant yàlla bu baax a baax a baax lan moo waral loolu lan ngeen choisir loolu ñëw rek dem tibb foo xam ne tey euh, xam naa ni euh, mélange bi do am doole la. non c'est pas la première fois ñu yar ay xar. Ah, depuis sam papa la. Ah, sama sœur tamit di yar ay laadum ñu yàgg ci. mais mooy soo yàggee ci yoon da ngay xam fa nga jëm. fa nga loolu moom moo tax mu demee nii tey tey mooy première exposition bi mais macha allah. sant yalla rek. premier exposition ngeen dem def ben sélection bu doy war ci ay sang yu doy war parce que bo fi déggé galactique bi dégg fi Chifa bi dégg fi ñom ay ñom hein teranga bi loolu day wone ni amna amna lo leen bëgg croisement bi na jaar yoon dina rafet. wa dëgg la dëgg la dëgg la ki boy bi sol ni wa doomu. moy Bilal Bilal wa Bilal ci sangu gaynde la bokk. ndaxte doomu Ile de Saloum. Bilal mu ngi kër ga. mu ngi kër ga rek rek la rek la. ñaar moo la Bilal mu ngi ci 6 mois. 6 mois ah, kon daal moom ngeen di waajal ko am nañ fa doomu sëtu Picasso. Mhm. boo xamante ne PDG moo ko jur mooy Poutine. am fa Poutine mu ngi ci 12 mois. mu ci 12 mois. Mhm. am fa sëtu monument ak Touba. Ah. mooy Godo Cissé. ah champion kooku ndëmb mooy yaayam. non champion yooyu yéen a ci yoon. waaw ah, baax na. am na benn problème tamit bu kii jur euh, nu mu sax euh, maaluke bi. sëtu bâtonnier. mooy ay cha mu ngi jur euh, am na mbote bu mu àndal doomu Cobra Fils la. bu Fata. mu kër ga mu ngi kër ga. yëpp ay mâle lañ. non ay boo femelle la waaw. kon daal trois jeunes mâles moo fa nekk wala deux. trois jeunes mâles moo yoo xam ne ñoom ngeen war a yëkkatee jug ak ñoom quoi pour ñu ak bébé doomu Beydi. ah macha allah. Ila Saloum moo ko tëb mu ngi ci cinquième mois am. mu ngi ci cinquième mois mu ngi cinquième mois am. kon daal li ma li ma déggee seen wax yéen. da ngeen uti ay femelle yu tëbb ak yoo xam da ngeen uti ay femelle yoo xam da ngeen dem uti ay tëbb. dëgg la dëgg la dëgg la ngeen def waaw topp ci ginnaaw gars yi rek topp ci ginnaaw gars yi baax na. topp ci ginnaaw gars yi moo ko tëboon ma doom ju daanu. Amazon Amazon capital capital. Oh. capital moo ko tëboon mu daanu. Balla moo ñu ko jox. Balla ah, dina leen joxaat dina leen joxaat. dañ ko foog wër delloo. parce que dina leen joxaat doom ju mu wàcce woon moom. waaw kooku moom macha allah. mais Balla dina leen joxaat bi dañ ko dugalaat. kontaan naa gars exposition bi rafet na début bi neex na euh, euh, satisfaction la ma ñëw tey fekk fi lu mel nii parce que waaye woo na ma ñëkkoon na maa woo ay weer ci ginnaaw waxtaan ñu waxtaan lu bëri. Euh, ba ba mu naan ma mi ngi débuté far yàlla tey ma ñëw fekk fi lii kon kontaan naa. tamit maa ngi kontaan si yow. parce que xam naa la mais peut-être dama dama xamul man waa Tëngéej laa. waaw xam nga xam nga Alassane Ndiaye ah, ah, ah kon xam nga ma daa yàgg naa seetaan sa émission waaw foo dem tamit naa la fekk ba foire bi passé bu tëngëj bi maa ngi fa woon man ak ñoom Assane Thianar ñoom ñëpp ay ñoom Mbayawa gaa yëpp maa ngi leen di nuyu ah. kontaan nañ ziar leen bëgg Sow la suñu doom la ndaxte suñu doomu grand duñ bokkoon ndey ak ah, moom moo ñoom ñoom ñooy borom verge bi ndax seen verge la ñun seen i papa lañu rek. dañuy ah, teg loxo rek mais booy ñoom ñoom. non booy ñoom ñoo xam affaire yi ñoo xam affaire yi. booy ñoo xam affaire yi ñoom ñoo xam ñoom ñoo xam chemin yi de. dëgg la dëgg la dëgg la jox ma numéro bay adresse. numéro. bergerie bi. waaw 77 449 90 97. 76 Número Mamadou Sow. waaw 00 33 652 52 59 54. 652 59 54. kontaan nañu grand. ñoo la gën a kontaan bu may ñëwaat déwén nag ah fekk production lii ma gis wala famille lii ma gis famille doy waar. incha allah nga jaar kër ga. incha allah non nga def émission kër ga quoi. mais généralement li ma fa dégg il faut ma ñëw. non faa nga